acca jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax topp gi ngeen ñuy topp waaye rawatina bi ànd bi ngeen ànd ak ñun te nag ñu ngi jàkkaarloo ki nga moom mooy Mayaka Ma ñu fas yéene waxtaan ak moom ci actualité bi nga xam ne moom moo xew ci seenam bi loolu lépp dina ko daal di waxtaan mais laata loolu dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi Maya maa ngi lay nuyu euh, maa ngi lay fay Momo di nuyu waa Sénégal di nuyu aussi sama ami TikTok yi di nuyu aussi sama mbokku patriote yi

Sonko ak Diomaye parce que rawatina suñu deret moo nekk ci affaire yi waaw après ma gis ñu bëri ñoo xamante ne nanguwuñu ñi dañuy jaar nii ñi kii nii mais loolu mbiru yàlla la boog ñëpp mënuñu nang bëgg bokk bëggandoo dara boog waa après ma ne gisuma kenn dem woy ko ci séeréer yi à part Usu Njool looloo waral ma def son boobu noonu ci moom. def son boobu ci bi dañ ko yaa ko xalaat rek def ko. son bi nag idée bi ci man la jóge waye dafa am kuma ci liguel ben waay buñu wax Emega koku day def ay top line moma ma defal top line bi yenn texte yu bari mo ci japp bind ko El Mastro aussi def bit bi liguey bi dal dañ ko travailler ci groupe dal mu nice wa ñu ñep ñoko travailler ak sama xarit yi ñu ñep du man kese parce que ñom ñi sama xarit yi ñewon studio ñep japp nañ ci liguey parce que ñoo nekkon sama ginaaw ah, may lepp lepp lepp Emega Emega. ginaaw bi ko wooyee est-ce que. Euh, président recevoir na la est-ce que yéen ngi déggante est-ce que Diomaye euh, Ousmane Sonko recevoir na wala wax lu rafet la. bu may woy Diomaye nag wala di woy euh, Sonko mën naa ne woyu ma leen ngir ngir ñu recevoir ma woyu ma leen ngir alal. mais tamit léeg-léeg boo waxee lu baax da nga di ngay jékki-jékki sax au moins que sax ñu ne ah kii def na lu baax si ñun xaaral ñu jëm koo waaw waaye bu ma leen di woy nag amour laa leen woy ak yëg-yëg parce que ma leen di woy tàggu ma kenn si ñoom dama jékki-jékki rek gars gis woy bi.

dama ko peut-être erreur bi mën naa ne ci man la. ci yow la. waaw parce que man maa ko dugal sans me protéger ko waaw parce que son bi dafa nekk loo xamante ne mënuñu ko woon dugal mënuñu ko woon protéger ba pare doo ko dugal son bi di la génn élection yi nekk dimanche bi stop te son boo ko naree protéger day def benn deux semaines te deux semaines yooyu mënuma ko woon xaar moo tax ma risqué dugal sama son noonu. far yàlla li arrivé ma ci mais ma ko dugalee mu def 4 jours dugal naa ko aussi ci plateforme yi waaye yàlla dafa dogal ne gaayen boobu daf ma ci jiitu rek moo tax daf ma ci jiitu léegi revenu yëpp yu war a ñëw ci man ci moom lay dem waaw ci moom lay dem waaw kon da ko dugal euh, après lan la nga jékki-jékki jot notification wala nga jékki-jékki gis ni yow mënatoo am accès sa sa salon bi wala. non am accès mais dañ ma bind droit d'auteur sa son bi. waaw après bindal ma euh, Kasuwa Distro moom moom sama son léegi. mais kooku mooy kan kooku da ngeen mës a liggéey wala lan. xaw ma ko de benn ñag la daal mais daal mi ngi noonu. benn ñag boo xamante ne xamoon na ko xamaan mu am accès sa ba ba dindi say droit ah xam naa daa gis son bi am doole rek mu jël ko man ci loolu laa jàpp parce que nee na ma dañ koo jaay son mais man gëw maayu jaay man dama jàppane dafa gis son bi am doole rek mu jël ko. mais mayaa nag est-ce que est-ce que nekkul loolu tamit parce que nag nit ku dem ba am droit sa seen tamit euh, pour am accès ba jël say droit tamit est-ce que amul lu si biir. non amu ci benn accès dañ ko ko kii rek dañ ko ko dañ da ko télécharger ci application yi wala si TikTok bi parce que dugalul lépp dagg la dugal. waaw ah, moom dagg rek la ci dugal. waaw. mais seen bi son bi yow instant bi heure boo heure boo heure boo heure boo kii daf lay wax kan yow moom moo son. mais sant naa yàlla nag ba am naa ñu bëri ñoo xamante ne bu ñu gisee vidéo bi jàpp nañ ci bu baax. li ci mel ni Lady Mouna am na ku ma boole benn waay boo xamante ne fexe na ba man récupéré naa sama droit yi ci sama yi ci nekkoon sama YouTube mais yeneen droit yi moo des waaw. Ah. ana ana gayen bi ki nga xamante ni moom moo récupéré say droit yéen a ngi déggante xamante ngeen mosoon na xamante wala lan. non bu mu dugalee sama son bi laa ko xam contacté naa ko mais ba léegi nangoogul euh, dindi son bi El Masro woon na ko woon mais dafa doon menacer El Masro ne ko boo defee vidéo ci man damay. éliminer seen réseau yëpp. ah bon. waaw. Ah. tey jàpp nga ne loolu mën na ko. <laughs> non non xam naa day wax ni rek pour ñu bañ ko taf parce que bu ma ko tafee après tiit na di may woo téléphone. waaw di wax que ne dindi na droit yi ci sama kii mais ba léegi dindiwu ko. ba léegi ko mais est-ce que yaa ngi ciy waxtaan mu dindi si la nga xamante ne moom mooy moom mooy ce sont droit d'auteur yi mu ci def. ah mais man nekkatuma di ciy wax dama ci xool ñi nga xamante ne mën nañ ma ci jàppale rek après ñu jéem ci jàpp. parce que boo ci waxee moom tout le temps tout le temps te te te àdduna du ne bu mu dindi ko kay nga jéem a am ñoo xamante ne da leen siy jàppale ba nga récupéré waat sa droit comme ni nga récupéré YouTube bi te mën naa récupéré waat lépp. instant bi kon jën nga YouTube bi. naa droit YouTube bi. léegi yeneen plateforme yi ñoo des. ñoo des waaw. mais tey euh, problème bi c'est-à-dire que buñ ko dee dégg ñu Sénégalais li jaaxal gars yi mooy ñoom. nit ki nan la mën a am accès ba nga xamante ne tey dina xam sa yëf ba mën a récupérer son def ci ay droit est-ce que tey sax sama xel luñ la kuñ kuñ jaay la wala luñ la jaay la pour pour pour pour nit ki mën a mën a mën a am accès ba dindi ba dindi say droit ah, mais xam nga son moom mën na viral rek nga gis ko dugal ko ci plateforme waaw moo tax jàpp ma loolu noonu dama jàpp que ne peut-être day jaxase xel rek wala di wax noonu mais son moom bëri na ñu bëri na ñuñ ko def ñu bëri ñoo xam dañuy gis seen son yi ci ci YouTube bi wala plateforme mu viral ñu récupérer ko dugalaat ko ci plateforme digitale yi di ciy fayeeku loolu bëri na ñu ngi ko def mais lu waral ma def vidéo bi que peut mën naa ko lijjanti ci suuf contact ay nit mais dama bëgg ñu bëri jàngat ci artistes yi nga xamante ne tamit ñu ngi ci milieu bi te ràññeeguñu loolu ñu gën ci bàyyi xel balaa ñoo dugalati son ñu protéger ko bu baax a baax waaw. tey nan la la def en tant que koo xamante ni dugg nga studio fanaan euh, guddee fa tey nga xëy un bon jour rek say droit yi nga war a son amatoo nan la def en tant que ko dund ah metti na waaye dama koy teg lépp ci loxo la xam ne yàlla moo bind ka ne droit yi waru woon nekk waru woon ñëw ci man waaye bu namaatee mu ñëwaat ci man day ñëw ci man incha allah waaw. ayca mi mu doon loo xamante ni mu doon loo ñàkk mu daal ciy wax mais nag dañuy ñëw si li xamante ne nag moom mooy sa diggante ak Ndiaye Lo foo leen ci toll. <laughs> sama diggante ak Ndiaye la la moo fi nekk. ah dégg naa da ngeen di waajal mariage foofu moom da ngeen di bëgg. Eh, bu leen mu dugal. maa ngi Ndiaye Lo mariage nu. ah bu leen ma dugal laa dégg de. mariage yu nu Ndiaye Lo bibis lay mariage la. Ndiaye Lo ci rang bi. Ndiaye maa moom xam na xam naa waaw ah, xam na xam naa waaye nag Ndiaye Lo moom boo leen waxee mun naa ruube mun naa wax lu nekk waaye boo leen waxee ci moom damay sawar parce que Ndiaye nit ku baax la nit ku ma bëgg bokk ku ma yëg nit koo xamante ne lu ma lu ma bëgg soo ba ngoon su ma ko waxee da koy def. waaw ah, jox na ma cër boobu li ma ko ñaan loolu lay loolu lay def waaw ah, moom aussi lu ma ñaan dama koy def parce que moo woon loolu. Euh, Maya tey nga nekk ci nga nekk ci art bi doon artiste comédienne euh, tey bu ñu doon wax euh, ci art milieu bi nga nekk nii est-ce que am nga ci idole. ci milieu bu ma nekk bien sûr am naa ci idole waaye nag comme dëgg ñii dañuy naan idole idole idole. mais eh, man idol bi nga xamante ne moom laa idoloo loolu ñëpp xam nañ ko muy Daaro dina ma neex. waaye dafa di référence. Mhm. waaw moo tax ma ne nit booy def ci moom idol danga nga ko war a fréquenter da ko war a fréquenter ba pare xam moom mooy kan te Daaro dama ko fréquenter moo tax ma sañ ne moom mooy sama idole waaw. waaw parce que la. référence la jigéen bu am fulla jigéen bu am jom. waaw. Ah. Euh, fréquente nga ko xam nga jigéen léegi nan ngay déggee ñi nga xamante dañ naan non diw mooy sama idole ba pare idole bo xamante ne doon la fréquente xamoo ko sax mais nga naan diw mooy sama idole. wa mo tax nit dal idole moom mën na bëri ku nekk mën nga gis nit ne maya sama idole wa wala diw sama idole la mais baax na aussi balaa ngaa ne nit idole da ko war a fréquente xam moom kan pour nga mën a jël ci moom ay qualité jikko parce que mën nga nit idole nga dem fréquente ko gis ci jiko jikko boo xamante dang da nga koy xeeb waaw. Euh, tey nga nekk ci milieu milieu bi mu doon milieu bu doy waar. Mhm. yaa ngi def ay son mi ngi def viral mi ngi def toile euh, tey kan ngay xalaat wala kan nga bëgg a defal ak ki nga xamante ne moom mooy fitri wala kan ngay rêver pour def ak moom featuring. donc <laughs> instant bi nag defaguma ay featuring mais je préfère focus ci sama bopp waa waaw focus sama bopp waajal ay yeneen projet lu dul musique sax ay théâtre wala ay pour sama chaîne YouTube bokk. lu ko jëmal waa lu jëmal. dafa mel ni yow sa dafa mel comédie bi nga gën a nga gën a favori li ngay def de. waaw ah, parce que comédie laa xam moom laa def formation moom laa jàng waaye comédie bi moom daa ump daa ump lépp boog muy muy kat bi théâtre théâtre boog moo ump lépp muy muy ki nga xamante ne day day tuur mbalit ki nga xamante ne day woy jaaykatu ndox beg lépp ci théâtre la ba ci yow mi def interview yëpp ci théâtre nga bokk. lépp théâtre moo ump lépp. aja Maya mi ngi kontaan nañu ci teew bi ñu teewoon fii waaye tamit kontaan nañu ci jël bi ñu doon doon jël doon waxtaan yow tey ban message ngay lancé sa mbokku influenceurs wala sa mbokku youtubeurs yi euh, tey la nga leen di wax ak ban message ngay lancé ñi nga xamante ne tamit ñoo nekk ci aar di ci dox ak di ci yëngu. Euh, message ma di lancé rek mooy comme genre li ma dal nii mën na dal ku ne nañ nañ prête attention ñoom ñëpp ku ci defati dara muy muy série ak lu mu mënti doon parce que série sax mën nañ ko sàcc de. dugoo ko di di ko sa xaalis moo tax ci léw mënti def demal nga protéger ko SEDAF boo paree nga protéger ko aussi ci plateforme digitale yi ba ci yow sa li interview yi ngay def nii rek yoon la nga koy dem protéger SEDAF. SND ko laal dootoo ko def. non yoon la nga koy protéger SEDAF parce que yow yoon la SEDAF di lay fay aussi interview yi nga xamante ne moom ngay def aussi waaw. parce su ma amee carte SEDAF nga dawal sama émission. man mën nañ ma fay yow ci émission sama image bu bu nekk ci yow dañ ma koy fay forcément kon fekkente ne amoo ko yow da lay waaw kon da nga ko war a am. acca kontaan nañu lan ngay daal di tàggatoo. Ah, di remercier suñu waa kër sama mag sama yaay di remercier aussi waa TikTok ak ñi nga xamante ne bi sama son bi tollee fii ba léegi ñoom ñoo ci jàpp di may message ñoom Element ñoom Elmo ñoom ñëpp daal maa ngi di remercier ba ci El Mastro bi nga xamante ne moo def bit bi aussi sonn na ci parce que dama ko ne El Mansour ma def mu ne ma day yomb dañu bàyyi noonu mën naa moom moo gën a tax sama am fitu def vidéo franchement parce que moo waxoon du ma def vidéo waaw. merci beaucoup ak élément yi nga àndal ñoom Saliou waaw mu merci am leen jaamu ju bëri daal te ngeen dem abonné ci page Momo bi chaîne bi. waaw mu gën a yéeg waaw. ayca kon Pam waaw merci beaucoup Mayaka moo di la jaajëfal bu baax euh, di leen jox nag dig daje beneen incha allah merci yaa ngeen jëf.